dans le combat continu euh, pour les euh, patriotes alors sëñ Au euh, quotidien yu bëri ah hein, repas nan ko mën citer tribune mën nañu citer citer plutôt point actu mën nañu citer yor yor d'ailleurs qui est une qui séjour mouvementé bi nga gis président de la république bu Macky Sall alors de meni, ni ils se sont organisés pour vraiment euh, andil jafé jafé le président de la qui est euh, foofu nonu ci États-Unis ci ab séjour euh, ci ONU bobé nga de mu nekkoon alors déjà lolu naka nga ko yow ak sur le plan politique naka lañ ko war analyser. au plan politique pour dire tout simplement que les pacifiens, ils ont donné une leçon de démocratie au président Macky mhm. parce qu'en en réalité boy gisee sax déclaration bi nga xamné mom lañ def Nations Unies ils ont dit que. Aujourd'hui, nous disposons de nous-mêmes, filles devant la devant euh, euh devant les Nations Unies. Oui. que ligne des filles, fii le Sénégal on serait gazé on serait arrêté etc., cetera ce qui est vrai. c'est-à-dire que imaginez et là j'en profite pour Nakharloul, ce qui est arrivé à la caravane de Bougan et de et, Bougan à Koussanar on l'a arrêté. on a arrêté sa euh, caravane parce que tout simplement on nous dit que comme ma c'est un lan seen terme yooyu lan à euh, l'ordre public ça trouve à l'ordre public <laughs> eh. depuis un bon temps aussi il en est victime mhm. donc ce qui veut dire que le Sénégal le droit à la marche le droit même à l'expression légale, amatu fi mhm. maintenant les États-Unis même, vraiment c'est le sanctuaire de ah la démocratie les gens se sont donné rendez-vous là-bas ils ont voulu dire à leur président que nous li nga xam ne moom lañ bëgg a au Sénégal les ñu ñaxtu ko et pour dire que c'était pas le seul hein. mm-hmm. même les les les israéliens ils sont allés faire un premier ministre nekk mm-hmm. dem fa ont aussi def fa tapage il y a aussi les activistes ont aussi dem nañ bu par rapport au euh, comment dire au réchauffement climatique ont aussi ils ont fait le travail mais et tout ça ça a été encadré par la police américaine mm-hmm. tout ça ça a été encadré mais Sénégal mënoo fay def benn marche léegi. Mhm. F24 chaque semaine ñu déposer ñu ne non risque de trouble à l'ordre public. ñi nga xam ne actuellement ñi ngi def seen caravane muy Bougane muy Malick ko aussi ñoom dañ leen aaye il paraît que sax sax maa ngi gis ay image bu ñu gazee oto ñoom Ahmed Aïdara ñu ne parce que tout simplement aussi ñoom dañuy def trouble à l'ordre et au même moment le premier ministre ou bien le candidat de Benoît Bokk Yaakaar est en train de dérouler à escorté par ses gouverneurs et escorté aussi par sa police et et mhm. donc il y permettre qu'ils lii li kii nga bëgg de mhm. ça c'est pas une démocratie. La démocratie mënul une démocratie à géométrie variable mënoo di permettre ñu nekk ci état bi lii ba permettre ñële loolu mënul c'est-à-dire les gens là ils ont le droit def seen caravane dem dugg parce qu'on est à l'approche de la présidentielle ont le droit dem seeti ay nit s'affronter ak nous. d'ailleurs li ci waroon sax mooy police ci boppam ñoom ñoo leen waroon encadrer parce que ñoom sa sont des candidats à la présidentielle te ñooñu ku ci nekk tey war nga mën a jiite dëkk bi donc dañ leen waroon yombalal sax faire de sorte que ñu mën a accéder ci population yi mais finalement loolu dañ leen koy xañ loolu nag mënuñu ko am seen dëkk bu ñu génnee dem États-Unis nag dajee ki nga xam ne mooy kilifa gi ñu won ko ne ko ñun fii et pourtant quand j'ai ah. vu le euh, rassemblement avec fofu vraiment police accompagner les avec ces euh, eh, camions sonorisés et même des images. mais mais je me suis demandé mais mais Afrique c'est quoi c'est quoi notre problème en fait. Mm. ça c'est la démocratie. Mm-hmm. la démocratie nous sommes démocratie da la may Maison Blanche taxaw wax président bi wax lu la neex wax sa naxar ba pare dem sa yoon. Mhm. kenn du la ko tere mais fii Sénégal buntu président sax fu nekk nii nit ñi metu faa jaar. palais boo xam ñu naan c'est le palais de la République les gens n'osent même plus passer ça de dire ci ci ci Rome parce que tellement y a la police y a et cetera Sénégal dañu mettre benn benn psychose sécuritaire boo xamante ni finalement lieu yi nga xamante ne sax c'est pour comment le le peuple peuple bi ci boppam dañu mujj di daw lieu yooyu donc je crois que président bi. war na am benn njàngat li nga xamante ne moo xew. Mhm. New York parce que c'est une véritable leçon de démocratie à New York. pour ne ko li xew New York Sénégal gii la waroon a xewee laisser les gens exprimer li nga xam ne mooy seen naxar police gendarmerie bu ñu leen war a encadrer ñu encadrer leen parce que loolu c'est un droit constitutionnel. Mhm. mais mënuñu chaque jour bu ñu waxee ñu ne risque de trouble à l'ordre public te li ci gën a métti mooy yow police bi ngay saisir gendarme yi ngay saisir pour ñu sécuriser lieux ñooña rek boo jëloon le un tiers mën en encadrer ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a kii donc bu fekkente ne danga ne y'a risque de trouble à l'ordre public dafa war a am ay conditions conditions yi mooy lan je n'ai pas assez d'éléments ou bien am na ci ay information yoo xam ne nii euh, comment dirais-je fii mën na am ay peut-être ay ay ay troubles yu grave grave te le même loolu sax su amee dañ ne il faut trouver suffisamment des force de l'ordre yoo xam ne ñoom war nañu mën a parce que loolu mooy seen liggéey bu fekkee ne dañu risque mën na am.

da ngay dégg ba muy dem di def tournée à Diourbel. Eh. mu ne ba muy dugg ba ko police taxawee lu mu wax dana dama leen ba ma egsi dama leen a fël jàll dem sama yoon. Mhm. te pourtant boobu bi ci boppam moom moo ko terewoon ne ko bu fi dugg moom ba ba mu ñëwee lu dama leen a fël parce que xam nañu ci droit la nekkoon te loolu nit ñi dañ ko jàppale woon mais su xalaatee loolu la tey ñoom bëggaan ñi nga xam ne ñooy def seen seen kii ñoom Malick Gakou yi nga xam ñooy def seen caravane.

on le déroule toujours le tapis rouge. est-ce comme ça que fonctionne une démocratie moi ce qui s'est passé à New York. non non non. Sur différentes manifestations il y a l'opposition opposition depuis depuis temps euh, euh, il semble que ce sont tous les documents complets par Juan Branco qui ont été transportés euh, en territoire américain alors comment est-ce que tu analyses la situation le président de la République est euh, foofee ca États-Unis par les pastifiants et puis bon voilà euh, une situation bu à xamante ni nii euh, dund ko et puis ñepp gis nañu ko loolu lan lañ ci war a mën waaw ma ngi nuy Pedre Pedre ndjay point actuel <laughs> alors comme ni ñu ko je pense que gis nañu ko gis nañu ko muy euh, li ci li ci triste rek mom moy aujourd'hui euh, euh, c'est l'image de la démocratie sénégalaise bi nga mm. euh, dañu ko dañu dañu ni ko mm-hmm. parce que mais ku nangu se lave en famille mm-hmm. maintenant malheureusement on n'a pas pu laver le linge sale en famille parce que nous nañu ko ba paré bu wowe sax exprimer manifester wax li metti kër. xam tout le temps. Mhm. yow nga tout temps ngay mais tout temps. aujourd'hui on peut peut-être F24 manifester à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal depuis presque une très bonne période chaque jour le préfet de Dakar brandit li nga xamantene moy trouble à l'ordre public pour bagn ay manifestation manifestation yo xamné l'histoire war na a montré que ne manifestation yi ñu autoriser Sénégal ben débordé wu ci mmh. au contraire dañu koy encadré ak tak der yo xamné moy gëna touti sax ñi manifester bu ñu paree même bu féké ne ndox dañu ko fa naan ba paré les sachets d'eau sont ramassés duñ fa bayyi ben ordure amul yàqute par contre les manifestations yi nga xamné dañu